dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor leen dara bañ leen a agite AGT News. ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci AGT News dal leen ak jàmm. l'observateur dañoo xëyee ne kii di Ousmane Sonko rendez-vous ba mu joxoon ña nga xam ne ñoom ñoo di agriculteurs yi daf ko daal di raté lu ni mel nag waral ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu ñeel wàllum mbay mi moom daa woote en direct ca TFM daal di démentir lépp loo xam ni l'observateur daal di nañ koy fësal ba noppi itam jox leen ay conseil lu ni mel lañ di bàyyi ngeen teewlu ko ba ñu noppee doo a dikkaat suñu jàngat bu leen fàttee aimé vidéo bi partagé ko ngir sénégalais yëpp mën cee jot. AGT News. Diaw ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay sëriñ bi. Mhm. yow yaay ministre de l' agriculture souveraineté alimentaire ak élevage wàllu waajtaayu mbay mi muy campagne bi semaine ba la am na conseil interministériel bu ci amoon premier ministre jëloon fa ay dogal bokkoon na ci fay bor bi nga xamante ni moom ngeen yoral producteurs yi ci wàllu jiw wi est-ce que tàmm la ngeen koo fay. d'abord maa ngi leen di gërëm di leen sant ci ci ci ci ci ci questionnaire bi di nuyu aussi sénégalais yépp euh, na ngeen ma baal balaa mooy tontu ci wax boobu ma ñaan suñu mbokk journalistes yi ne leen euh, dëkk bi ñu ñoo koy defar ensemble et que information boo xam ne nii dañ ko war a génne intégri intégrité ak éthique daf ci baax dama bëgg confirmer sénégalais yi ne euh, ne commencé nañ pay Euh, plus de quatorze milliards fay nañ leen vendredi bi sur les dix neuf milliards qui ont été certifiés par par par suñu service yi. Mhm. campagne deux mille vingt et un deux mille vingt deux et deux mille vingt plus de milliards fay nañ leen déjà vendredi te tey jii ci suba le reste sera payé après vérification comme ni ko comme ni ko premier ministre bi euh, insisté instruction yi mu ñu jox mooy que ne factures yi dañu leen a bëri vérifier confirmer leen balaa ñu leen di fay mhm. loolu. commencé nañ ko fay quatorze milliards fay nañ ko vendredi te tey ji incha allahu rabbi trésor bi nag dina fay li reste parce que confirmation bi euh, weekend bi yëpp équipe bi ñoo ngi ci doon liggéey. Mhm. jërëjëf. bor bi yëpp ñaata la. Euh, euh, bor bi yëpp c'est tourné aux aux aux environs de quarante et un milliards. Mhm. mais dafa am benn processus de vérification boo xam ne ni moom la ñuy def. Mhm. d'accord euh, beneen bi tamit mooy gis nañ benn circulaire boo xamante ni yow yaa ko signé jëm kon ci coppite maanaam nit ñi séddalee jiwu yi ngir mu am transparence da ngeen ne woon soldat si ngeen koy dénk am na ay commission yoo xamante ni commission régionale ak départementale lu ngeen ci jublu ci loolu. boobu euh, euh, encore merci une fois de plus am nañ benn réunion interministérielle ak suñu suñu sama collègue des forces armées avec tout tout tout le haut commandement. constitué nañ commission yi ñaari ministères yi ñoo ngi ciy liggéey et que processus boobu déclenché nañ ko et ñu yàlla dimbalee même tey jii la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy dépouiller euh, euh, euh, clip fermé yëpp yi nga xam ne nii fournisseur fournisseurs yi def nañ ñu offre ensemble avec les forces de avec avec avec waa ministère des forces armées hmm. jërëjëf ñu koy sant di gërëm xam naa beneen yoon di nga ñëw fii ñu yaatal loolu lépp inchaallah wax également ci càmm gi ndax tabaski gi xalaat sans faat yi moom xalaa leen gën a yitteel jërëjëf <laughs> merci beaucoup ñoo déggandoo en direct démenti bi nga xam ne ministre bi def na ko muy lu am solo loo xam ne nag journaliste yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax laata ñuy bind ñuy ut information yu wér te te itam ñuy vérifier balaa ñuy fesal Sénégal yi di am njoxt ci loo xam ne du dëgg teguwu la te ba noppi itam ñu jéem a lëndëmal xelu Sénégalais yi. lu ni mel nag dafa yàgg am ci journal bii di l'observateur moo waral ñoom ci boppam war nañoo xoolaat bu baax a baax la xam ne moom la ñuy bind di ko daal di fesal comme ni ko ministre bi daal di suggéré kon nag lépp loo xam ne rek xibaar la nañ koy xool xoolaat ko set ko setantal ko laata ñu koy fësal ci kanamu askanu Sénégal AGT News.